bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi fiika yàllaaw الأمر يا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجر برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلب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 الدارين يا الله وبالمعيمن لس أبي استرايك ما خبيت رم إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب بإيستي إذا يقلد لدولد تكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل الإداء بلا سي مورنيان سم سودان دي واتنا با نينا ني دغال واخ دي ما واخ وما سعيدنا الا بما علمنا موم سيدي مي توك li mamam ju bax ja doon doxal tegoon fa tankam ñom mo leen taxato a waxta bi abdillahi jamian wala tafarraxoo moy téye bum gi muy bumuk l'islam mu xam genn bum la mo wara sen teway bi bii ngi ko doon wax legi nan ko su duggé ci bir saal bi moom sëñ bi day yëg kontante. mbégteeb lislaam. mbégteeb lislaam. sëñ bi day ma léegi. bi day ko léegi. ñi daa bëgg ma sànni kàddu yi témoin. li ma dégg ma seere ko ci sëñ Xaadim mi toog. nee na moo tax mu teg ñaari kàddoom ci wax ji nga xam ne moom la seere ci sëñ Xaadim mii. ba déwén. ndax na tàggoo. waaye booba saa waaye booba saa borom nee na. du ma dem lu dem lu dul. tek sama kadi, tek kadi, sama kadi, yi ci kàddu yi sëñ xaadim mi toog sëñ xaadim li ngay def ab aaya la ci bu wala wala tusriko o bi sayan wa bi walideyi ihsaanan la ca tek saa borom nee na boo ma jaamoo ba pare bu ca teg lenn. bu ca teg lenn. lu rafetal. jëm ci sa ñaari waajur. jëm ci sa ñaari waajur sëñ Xaadim. rafetal jëm sa ñaari waajur nag. rafetal jëm sa ñaari waajur nag sëñ Xaadim. mooy li nga wax. mooy tey lii nga def. maa ko wax. waajuram. waajuram. noonu la doon def. noonu la doon def. ci waajuru sëñ Sidi. ci waajuru sëñ Sidi. kon soo wëlbatikoo def noona. kon soo wëlbatikoo tey jii def noona. yàlla lool la bëgg. yàlla loolu la bëgg sëñ Xaadim. doonul loo xam ne. doonul loo xam ne nag. da ko koo sos. da nga koo sos. da koo sof. na nga ci jàpp na nga ci jàpp baax sëñ xaadim te xam ne nag te xam ne nag loolu lañ fi dese loolu lañ fi dese sëñ xaadim nañuy bañ nañuy bañ ndax lii ndax lii am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dinañ sol mbubb sax dinañ sol mbubb sax gën la koo rafetle gën la koo rafetle di ànd ak yow te buñ sañoon mu jeex mu jeex waaye dañuy fen du jeex de waaye du jeex de sëñ xaadim am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne waxuñu ci diine dara waxuñu ci diine dara diine lislaam diine lislaam waxaaliwu ma tarixa nag waxaaliwu ma tarixa nag waaye duñ ci man waaye duñ ci man dara la ñuy xalaat la ñuy xalaat di ko liggéey ba defee ni lii dafay jóg nu ñu nañ xalaat loolu ba jàpp ni lii du fi jóg sëñ xaarim ndeysaan jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi nag seen wëlëre la lool moom sëñ Sidi moom danaan ko bu ma jógee canaba ba ñëw bu ma la nuyoo ñaanalanteeg yow Mbàkke su ma génnee ay mbake lu mu ci dolli baax na kon sëñ Xaadim jërëjëf. ah ci turu Serigne Sidi Mbacke. ci turu Serigne Sidi Mbacke. xalifa Serigne Askade Mbacke. moo leen di nuyu. moo leen di nuyu. sëñ Xaadim. sëñ Xaadim mii mu sëñ Modou Ndiaye. ak mboolem ñi mu àndal. di leen dalal. di leen masawu coona. di leen joddili kàddu yi ngërëm. ak cant sëñ Xaadim. sëriñ bi nee na. sëñ Xaadim. lii nga def. maamam. sa maam moo ko daan def sëñ Modou Mamour waajuróom bu góor sof ko ci sëñ Asgede moom mi dib taawam sos ko ci waajuróom sëriñ bi nee na bi fi waajuróom jugee la waajuróom wa daan def sëñ xaarim def nga ko waaye ne li ko ci gën a neex gën ko cee yéem sëñ xaarim da yokk yi fi nee nag loolu pëseef akuk dogu ak xam lim doon ak lin ko yar ak lin ko nàmpatal ak li la ay say waajur joxoñ kon nag sëñ Xaadim sëñ bi nee na sa xelam na ci yow sant nela la xolam sedd na mooy mboolem ñi nga àndal mais xamal ni la fa sa waajur wa tegoon tànkam teg nga fa sa tànk sëñ Xaadim te yokk nga ko. nee na jëf ji kawe na njortam rëy na lool ci moom rafet na ci moom lool sëñ xaadim kontaan na ci lool mi ngi ñaan ci barkab seexul xadim barkab maam Seex Anta barkab sa ga de waajuróom wa mi muy liggéeyal te ànd koog yéen ko yàlla fay yokku katan gi yokku man-man gi yokku xéewal gi ba bu déwénee li ngay indi ren ngay indi lu ko ëpp xolam dafa sedd xelam dal ci yow nee sëñ xaadim sëñ bi nee na na sa xel dal te xam ni sëñ xaadim léppay baax day gën a baax day gën a neex fas na ne fas na ko yéen a ànd ak yow lu yàgg incha allahu yaa ngi nga àndal ñëpp sëñ xaadim ak fay ba ñëpp ak taalib bi yëpp sëriñ bi nag di seen wasila ñoom ñëpp ñu ne ci keppaaram di fi xeeñcu ngërëmu sëñ As Guédé ci moom mi képp ku ànd ak sëñ Sidi fu sa pas-pas toll ci moom sa yéene fa toll fa ca moom lu kawe sa njort di nga ko am ci ay xéewal ndax moom mi seen jëwriñ la waaye moo leen jiitu moo leen man moo leen ëpp sas moo leen dàq bay ci tool bi te xaarut kenn mbàkke kon nag yéen taalibe yi nee na mi ngi soññu boppam moom mi di leen soññ yéen ñëpp ngeen gën koo roy gën koo ñaanal mu fi mbàkke ndax seen ndam la seenu sag la kon nag sëñ xaadim ñëpp a lay sant ci turu sëñ Sidi te ginaaw bi la sëñ Sidi sante gërëm la wax ji nag moo nàpp loolu xol bi nag sëñ bi nag xol bi daa sedd ba fi ne nii mënta wax ba mu wax wax lépp loolu lu ci jub rek sëñ bee nee lu ci matut nee na moom mi doon jottil la moo la ci kàddu yi ba tax àggut fa mu war a àgg jërëjëf sëñ xaadim jërëjëf Mbacke ay sëñ bi yàgg fi lool te wér Mbàkke yàlla na yàlla guddal fan wi te wéral cër yi jëf Mbàkke yàgg fi lool amin Mbàkke amin barke Sëñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke كل انقضاء بنفسي اللي اخترته يا الله عجبت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر ده كل يا الله يا غالي خلق الغيلق ما أساء أبدا بالبير والسذي رلوان يا الله يا بارع القلق خد لنا فدعونا سن وخند يا الأجر للجماعة يا الله أتى المساور قلب للنبي بسارا يالنا كو يالا تخاو فم بغا يغر يالنا كو يالا يغر lepp taxaw boo xaayta yaayam taxawoon na ko ci man taxaw na ci taxawaay bu ko jiit nii nii tayaam fàttiwuma benn yoon ah ñoo ngi ñaan sa borom xare ko xàjjana lépp lu mu bëgg def yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla yeggale ba mu def ko waaw yàlla na ko yàlla yeggale ba mu def ko am naa ci moom kontaan lool waaw jërëjëf jërëjëf waaw ji mu jaar la ci yow am na leneen lu wax na ko xam ne kon kon am ku la ko day wax rek bilaay wax te yàlla dara la jërëjëf dara mënuma réer toakal jërëjëf waaw am ku am ko am ngor la ko am teggin la ku am sutur la ku am ngor lay nit bu jiitalee kilifaam rek te la mën a def mu mën ko def du ko yëg mu di ko def te mu koy def mu yëg ko loolu maam fi la nit mën a yem waaye nag yàlla na ko yàlla yeggale yàlla na ko yàlla yeggale waaw fi mu dëgmal daal yàlla na fa yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale santees na ko gërëm ko ginnaaw bu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant Seex Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa di ñaanal bu baax Sëriñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal ba yéenam yëpp àgg ci barke borom Tuubaa di ñaanal bu baax jàmbaari Daaru Salaam di sëñ Abo Mbàkke mi yëpp di ñaanal fan wu gudd ànd ak ak mboolem njabootu maam Seex Anta di siyaar bu baax nag boole kooku ñaan ci sunu jàmbaar jii toog di Seex Sidi al Muxtaar moom sëñ As Gede moom sëñ Modou Mamoun moom maam Seex Anta borom dërëm ak ngërëm na nga yàgg yàgg ko yéene ñoo di waat siyaar boo xam ni miin nan ko ci waxtu yi miin nan ko ci bis waaye miin nan ko ci waxtu yi ak seef yi muy kan kenn ci moom di jëwrinam di ndawam di tànkam di noppam di bëtam di leppam di kan sëñ Modou Mamoun moom sëñ askede Guédé moom sëñ Modou Dox moom maam Seex Anta borom dërëm ak ngërëm jàmbaar la joo xam ne fii waajuram bu tedd wa toog la daan toog di def nii ba mu ko noppee gis jàmbaar jii mu gis te di ko xoole waajuram waxtu nekk di ko diglu jël léppam jox ko saabu waxtu yu jotee fii mu ànd ki bokkam ànd ki soppem ànd ki wëlëreem ànd ki am di jàmmam ànd ki taalibeem li leen ñëw ñu ni sama sang bu tedd ba ñu siyaare jóg kon sëñ Modou Mamoun balay si lii yàlla na yàgg rafet ci njort nag ni dina yàgg dina neex ndax yaa ko waxan daaw te balay sa sa diggante jàmbaar ji dang cee doxalewul kenn doxalewoo ci nen luddul bëgg ak wol ak yaakar ak doylo ak xol ko suba di waajuro waaye moom it mu delo la lepp bañ ne bani lo wax maa ko wax fo dem ma la fayewal ko sekandel ma sekande ak mom lepp lo waay bëgg te te jaar ko ci yow bu ñëw day yom kon walay sili yalla yak ci barki borom tuwa nuyu sëriñ bi rek nee ñu ngi nuyu sëriñ bi bu baax a baax nee na ko daan waxe rek ndax sëb sëriñ da ngay wax ci moom da wax ba dootoo xam li wax ndokk nag bi ko sëriñ bi xamee mooy ndey mooy baay moo di ab sëriñ it nag nee fii nga xam ne fi la toog di jitaayub sëriñ As Gede jàmbaar ja ne nee na moom day balay sa ma dana ko sëkk nee na koy ñaanal rek sa borom guddal aw fanam ca ko pas-pas bi ak yéene ji moom mii koy wax nee mom day balay sa moo gëna dégg ndax nit bu ngeen agge bu ngeen yagge bu ngeen yagge nee da ngeen di dem ba seen diggante nee na wax dootu ko lijjanti nee na da lay xool rek nga xam lim bëgg wax nee fofu day de àgg fa ak sëriñ bi nee na nag nee na pas-pas rek la nee na la mu ko waxoon nee na day dégg ñu naan sëriñ As Guèye jóge na fi nee na mu ne leen man day moom sëriñ baa fi ba léegi te nee na lu wér la nag. nee sikki sikk sàkkawul ni nee na toogaay bii Seex Sideel Moxtaar toog nee na làq na ci ngërëmul nee na loolu moom sikkiwu ko ndax nee na léeg-léeg moom mii daf koy woo nee na di ko yëgal moom mii ci boppam dara nee na moom de day am kersa sax nee da wax ne bu sañan looy defati nee na defal rek yaram nee moom na ko dégg rek waaye nee na moom bëgg ca sax joxem xel ndax ki nga jox sa lépp moom nee na da koy bàyyeeg sa lépp balees nee na foofu rek la nekk mbàkke kon nag Mbàkke yaaram ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax te di la ñaanal balay sa sa wan gudd nee na lii nga xam ne moom la yor ci loxoom nee bi màggal gi jub see fekk moom mii mu tukki nga xam ne liggéey ba mu ko waxan nga am liggéey boo ko waxan bu jëm ci Daaru Salaam ñoom ñun ndey Mbàkke luñ ca war a na mu mel ni nag mu mel ni bi mu duggee ci am noppam daa nuru lu diib waaye daa am bàllee sa mu ci yéene ndax ñi nga xam ne ñoom la ci àndal nee na ñoom rek la àndal di liggéeyal nag sëriñ Tuubaa nee liggéey boobu nag Mbàkke Yaaram nee moom de leeralu leen ko waaye nee na Mbàkke daa bëgg a xaar ba bis bi agsi ba kum ci man di doon saw ñàkk mën tàbbi nag ci liggéey boobee nee moo tax Mbàkke mu ne naa xaar rek ba xale yi ñëw ak wëllëre ak soppe kenn ku ci nekk la nga ma jox ngir jëmm sëriñ Tuubaa ma dajale ko mu néew mu bari ñu ànd di dugal ko ci liggéeyu sëñ Gaawoon boobee kon balay sa lim la waxan nee moom de Mbàkke yaaram xamutu sas nee na li ma la yéen ndax nii muy doxeeg yow nee na du dagg mukk nee xanaa balay moom lu yorul te nee moom bu ko yorul nee doo xam mukk ni ni yoru ko nee kon daal balay sa nee yàgg fi rek te wér nee nga xam ne ñoom la àndal balay nee na ñi nga xam ne ñoom la àndal balees na ay ndaw lan nee na bëgg rek na bëgg rek moo ko tax ñoom ak liggéey Serigne Touba nee na balees na ñu ngi ñaanal bu baax nee na leen ñaanal bu baax nee na ñu yokk lool ba ko nee ñaan gi day nee lam la waxan daaw rek nee moom rek la lay waxaat nee fu mu nekk daal balees nee na fa liggéey nee képp koo xam ne jaxasoo nan mu xam ko nee na képp koo xam ne jaxasoo nan nee na xam sëñ Modou Mamoun mii baa muy ab soppeem nee ñaan gi rek balay sa genn rek la nee lu mu yëkkat daal nee lu mu diis diis nee na mel ni ci moom nee na poojub ginaar rek poojub ginaar ak oyof nee na wax tey lu aajo rëy rëy ak lu diis diis nee na nag ko ñaanal balees maa ñii ma àndal nee na ñi ci nag ñun ñëpp yaanu boole jaboote nee bu ko nag nee ci ñi nga xam ni moom nga yónni ci moom muy waa Ndakaaru nee na muy waa feneen ak feneen nee na balay sa daam lu ko ci neex lool ci ñëwatug séance gëri gii nee yombul de balay sa ndax njaboot gi de balay sa nee na ki ci nuru mag ba ki ci gën a doon gune nee li ko gën neex ci ñoom nee na képp koo ci wax aajo nee na benn baat rek la lay tontu nee na kan nga ko bëgg kañ nga ko bëgg nee na mboolem balay sa loo jaboote nee ci biir kër sëñ asked gi ak fu waay mën a nekk nee na de balay sa da koy seereel nee na genn la nee koo ci wax yitte nee benn yitte rek la lay wax nee wax na ko Modou Kane mais keroog nee lu yitte rëy rëy balay sa boo ko nee nangam laa bëgg nee benn baat rek la lay wax kañ nga ko bëgg rek balay sa nee nag moom da ko cité waaye ñëpp la wax waaye nee na Dame mii am na lu mu ci xam lu mu wax nee na Balla Gaye day yàgg day neex. nee na day neex lool. nee na Balla Gaye ñëw nu kenn. nee na sëñ As Guédé jàmbaar jooju nga xam ne. nee na lim fi nga ne yoonu Balla Gaye ñun ñuy say ndaw. di la liggéeyal. nee na rafetal njot rek mbàkke aram nee na foo bëgg a dem demal nee na foo bëgg a demal nee dara du yàqu mbàkke nee dara du yàqu nee na alhamdulilahi rabil alamin dara du yàqu nee na dara du yàqu nee na yàlla na la yàlla nee ci barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf balay sa euh, Mbàkke waxtu wu tolloo fii xool day tooy li tax xool di tooy balay sa yaanu ko ji yaanu wuuf yaanu boot yaanu tee yaanu yëg yaanu faale waaye yaa ne sun kanam yaa yaay sinaas waaye yaa mat sinaas balay yal na nga yegg ni yoon yal na la yàlla cet maa ngi sàkku nag ci kuy dégg sama kàddu na di seex si deel moxtaar yàlla na fi yàgg déwér seex si deel mbàkke yàlla na fi yàgg déwér képp ku jigéen foor la yàlla na fi yàgg déwér waaye nan ñaanal suñ Moodu Maamun mii mu yàgg fee ñëw te naandu koog moom yéen ñi ma nag na ngeen xam ni lii def ko guléet yàgg na lool baayam noonu na mooy ab soldaaram waaye jàmbar ji nee na mooy sama soldaar baayam noonu na mooy sama amir ko xam xare amir nee na baayam nee na mooy amiram waaye Cheikh Sidil Mokhtar nee na mooy amiram kon balay sa ñu ngi ñaan ci bak seigne tuwa ya xam li nga bëgg and ko ak sa mbolo mi yalla na yegg modou mamoun neena di nuyu nak mbolo mi ma andal li gep neena bayiwul kenn neena xana mom de balay sa da ci sof ay wax ndax lim wax digeentem ak mom nee na yaakaar naa ne wax tax nit xam ko nee na boo nu fekkee ñu toog nee yaakaar naa ni doo xool ni ñaar ñi nee na sekkuñu lu dul ñaar ñu bokk nday ak baay waaye nit ak taalibeem ñooy toog ak nit ak sëriñam nee xam nga moom lu ko neex ci mbir mi nee na ñoom day ñooy ay doomi sëriñam waaye ñoom nag ñooy xar def ko muy seen doomi sëriñ waaye nee na loolu dañuy xam ne liggéey sëñ Ass Guédé bi rek rafet nee moo rafet rek nee na moo rafet na moo tax njaboot gi doxe nii ndax bu amoon neneen lu ci dugg lu bokkul ak nii ñu ko bëggee nee na am na ñoo xam ni ñëwuñu woon daaw ñëwoon nañ daaw nee na ñëwoon nañ daaw jéeg waaye ñëwaat nañ ren te ñu ngi ñaan nag ñu ñëwaat déwén te nee na lii moom dara soppeeku ko ci nee na bu ci leneen duggan ay ndax dugg ci kon day du demee nii nee kon sa gaay yi du ñëw ren nee dan naa daaw nit ko nee na du dara waaye xam na ni moom sëñ Mamoune mii nee na lim nekk moom dëgg la nee na taway na ci deng nee mooy kër sa yaas rek nee mu jag rek muy mbiram lool rek muy yitteem nee na amee nag rek mu jël léppam nee def ko ngir kër gi jëm ca kanam nee kooku dey balay sa xarit la nee na doomu ndey la ab taalube la waaye nee lool loolu de balay sa moonu boole kon nee na ñu ngi leen di ñaanal yéen njaboot ki nee na liggéey yii nga xam ni sëñ Modou Mamour da koy sumb nee di ko ànd ak yéen nee na ci yàlla defal ndam nee na yàlla ci yàlla defal tawféex nee daal lim am te di leen ko dénk yen nee na mooy ngeen teel ko ko nee bu baax nag nee nag waxul téye téyin yu ndaw ndawaan yi nee na koy téye bu dëgër nee bu dëgër nee ndax nit moom mu yow nit ren xam na mën nga ko téye walla mënoo koo téye te nee na yéen xam ngeen ni mën nañ koo téye ndax boo tàmbalee Cheikh mu Diakhaté mii nee na mais nee na yàgg na ak te nee koy gis ne nee na du gone de te dañ na ak kon bu jàppee sëñ Modou Mamoun nee na gën a continuer na xam na lim jàpp lan la nee na yàlla na yàlla defal ndam nee na jotaay bi yàlla bu mu doon sun mu jël jotaay na yàlla dem ñu teewe ay ateet nee na yàlla nu sunub liggéey ci barke maam Cheikh Anta nee na bég nan lool nee na day xanaa lépp kenn mënu ko wax waaye nee na xam na nee na man mii xam na nee na ñi jeget xam nan kon nag nee na dañ leen doon gaaral lii ngeen ngeen déggu xam ni kii daal nee na lépp la nee na la te nee na xam na ko te ñi jege moom xam nan ko kon yàlla na yàlla jàppale ci barke borom Tuubaa nana na jërë ngeen jëf sal jërë ngeen jëf ak ngërëm ak xol bu sedd guy nee ci seen def ji reey ji nee ju kaw ndortam nee yow de da nga nek ji la nga war ne nee lol la wajuro joxoñan nee namp dal ci nee mom de gis na ni nee waccio yono nee na yaa ñi nga àndal nee na guy jéen nee na liggéey bi day pasewu na nee na xasida yi ak paste bu wér a wér ak dogu nee na ak cofeel gu wér Mohamed sëriñ bi ne nee yoon wii ngeen jaar neena na moom rek mooy yoon wi xamalal seex ni ko nee na li tax mun la mooy yoon wi boo nekkuloon ci yoon wi jëmm yu tedd yi nee yu sell yi nee na du leen xool ku leen gis leen nee xam ne ay nit lan nee yu deñ ak réer nee na may ay xel nee na bu naandee ak yow nee ci liggéey bi nee na rafet lool nee na sikki sàkk du jaamu yoon nee na dangaa tegu ci aw yoon nee na boo teguloon ci aw yoon boo gëstoo nee na doo leen gis nee na ak ñoom nee kon day du yàgg kon sëriñ bi nee na mi ngi lay di la ñaax nee na nga gën a takkaat sa laxasaay nee na xam ni de yaa ngi ci yoon yi nee moom nag nee li ab sëriñ di warloo digganteem ak taalibeem nee moom day ca la ne nee na soññu leen ci waar wi nee tegu ca yoon ba noppi jiitu ca nee bëgg nag ñëpp topp ko ci nee ndokk nag nee na ak ñi nga àndal xam na ni de yow de nee na geesu nee gis leen nee na loolu de pëstëf la nee ngeen dalal seen xel nee na yokkit seen yaakaar nee na gën a dëgëral seen laxasaay xam ni seexul xaddim moom nee li ñuy wax loo dof dof nee na moom sëñ Tuubaa la nax waaye loo nite nite nee na ndax sëñ Tuubaa kon kon nag nee na sant leen gërëm na leen mi ngi leen di ñaanal Seexul Xadim ak maam Seex Anta ak jëmmi Sëriñ As Gede mi tax ngeen di ànd ak moom nee na na barke topp ci yéen nee na yàlla na yàlla gërëm jëf na yàlla yokk mbooloo mi nee na yàlla na yàlla yokk mbooloo nee lu ngeen def ren bu déwénee nee na ngeen def lu ko lu ko lu na xolam set na xelam dal na nee na yàlla lan daje ngërëmu sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf jërë ngeen jëf sa yi may yëkkati day kàddu ndigal sañ ma ko bañ waaye kàddu cant lay doon rek ndax heure bii daaw lañ sukk fii si kanamu jëmm ju tedd ji ànd ak sunu wasila ànd ak sunu maam Cheikh Anta ànd ak taawam bu baax bi ñëw sukk si kanamam saare ko si ni daaw mu ñaanal ñu ñu ñëwaat reen di sant rek di sant bu baax Mbàkke di la wax ne la rëccu ñu luñ doon ànd ak si ngaas te yëg nañ bu baax ne fa ñu maam Cheikh Anta tegoon teg nañu fa ñu ngi yëg maam Cheikh Anta bu baax xam nañ tamit ne kër gi kër maam Cheikh Anta ñun suñu kër la loolu xam nañ ko bu baax ba tax na sëñ as mi maam Cheikh Anta rek lañ koy xoolee ndax ñun suñ jëmm yi kenn ku si nekk maam Cheikh Anta dalaa wuutu sa waajur si yow defal la loo xam ne sa waajur defaluloo la ko kon ñun mënuñoo fay maam Cheikh Anta Mbàkke lépp lu ñu mën a def kër maam Cheikh Anta yi mënuñu ko fay ndax defal nañu lu ñu kenn defalul dañuy sant yàlla nag bu ñu boolee si njabootam bu baax Mbàkke di ñaan nga ñaanal taalibe yi ndax dañoo am yéene ñaanal nga ñu daaw ñu yëg ko yëg nañ ko bu baax ndax xéwal yi macha allah màggal gi day yokku rek waaw te ku ñëw kër maam Cheikh Anta xam ne yokkute am na bu baax ñuy ñaan nga gën ñoo ñaanal ndax suñu yéene si kër maam Cheikh Anta dafa rëy. yene ji reyna na doole ji matee ko Mbàkke ni sakku si yow ñaan bu baax kaddu cant rek la li mata wax suñu jeewriñ yi dinañ ko wax man dama joxe kaddu ziar ak kaddu di la ñaanal Mbàkke nga yag fi da yaay suñu as gede yaay mam chant ñun sax njabot lañ kon la lay ñaanal nga yag fi rek te wër ñaanal sëñ as mu yag fi te wër ñun taalu bi ñu lay wax ne sant nañ bu baax sant nañ bu baax suñu xel tamit dal na bu baax yow it sa xel na dal bu baax sëñ aas fu maam Cheikh Anta taxawoon fa la taxaw si taalibe yi loolu rek laa si wax li des lépp kilifa yi dinañ ko wax Mbàkke ñoo ngi lay ñaanal bu baax nga yàgg fi lool te wér waaw sa yéene si kër sëñ aas gede lépp sotti ñoo ngi lay ñaanal Mbàkke jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan. ci barke sëñ Tuubaa ndax xam nañ fi ñu féete bu baax xam nañ yéene ji nga am ci bu baax ndax euh, ñuy seereel mbokk yi nekk fii ni fépp fu maam Cheikh Anta këram gi taxaw na ko fa def ñoo tamit lu dàq ci àdduna mooy nekk kilifa gu mat kilifa Mbàkke dañoo taxawu teeta ñu ba teg ñu ci yoon ñu war a dem teewul mu jël bëtam teg ko ci ñun duñu xool muy lu leer première màggal gim ñu njëkkee bàyyi ñu màggal dañoo màggal ba ci suba sam woo ma ci saalam man ak Mor ñu toog mu ni ma bawu ma leen ngeen dem de teg naa leen ci yoon boo xam ne jàpp naa ne su ngeen ci tegee dara du échec waaye teewul ma teg seen bët sama bët ci yéen di leen xool bu ngeen nar na jàng ma puus leen barki borom gaa waxoon tenkuñ ñu la sant bu baax Mbacke xam nañ yéen da nga am ci sa mag ju baax ja yàlla na ko yàlla àggale nga dolli ñëw ñaanal bu baax a baax xam nañ ni bàyyi woonu ndax li wér bu woor mooy la kii naan am ngu naan nàmpalut ay doomam mais bu leen xoolee ñu regg yaa ngi koy def ak ñun xam nañ ku baax te biir na ma ni maam Cheikh Anta Mbacke suñu sang ba fa tëdd xam na ni yaa ngi taxaw njabootam njabootu maam Cheikh Anta nag amuñu sa fay ñu ngi lay sant saayirano baati nan li waa ji naan xaj ba dafa baw ni xamut xamut ña ko wax la ko wax ña ko ko ni ndax ñi ngay taxaw njaw maam Cheikh xam nañ ko baax a baax ndax lii nii mooy bi maam Cheikh Anta jógee ginnaaw mu taxawu këram di ko taxaw di ko taxaw ba teg njaboot gi ci yoonu siraatal mustaqim ma xam ni war nañoo mën dem mu ne leen jaar leen nii ngeen dem pare taxaw di leen xool jàpp ni yoon wa teg duñu jàng duñu koy xam bàkke fa nga ñu teg duñu jàng duñu jàdd na sa xel a dal bu baax a baax fa nga ñu teg duñu jàng duñu jàdd te dina dem ca kaw ca kanam mbàkke yàlla nañ sëg fan gudd li nga yéene ci njabootu sëñ Ass Guédé gi ak euh, yoonu sëñ Mourou Mamoun yi yàlla na ci yàlla def lu kawe sa njort njaboot gi sant nañ gërëm nañu amuñu safe nag yàlla même fay tey fay yàlla na la fay ci barke Cheikh lépp loo yéene liggéeyal maam Cheikh Anta yàlla na la ko yàlla defal ci barke Cheikh Khadim nga ñaanal lañu sëñ bu baax baax nag te xam ni yaa ngi ci boo ko saayiran baat na mais dañuy rek li Mbàkke yàlla na safan gudd jërëjëf Mbàkke ñuy sant mbooloom yépp sant mbokk taal bi ñu ko bokkal di leen ñaanal yàlla nañu maam defal lu kaw suñu jot Mbàkke nag loo ñu ñaan rek Mbàkke baax xam nañ yéen a ji rek kon jër sëñ bi jërë ngeen jëf conseil jox la nga sànni ci taal rek asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégalu bu baax kàddu yi di siyaarewaat di santaat yàlla di santaat yàlla bu baax bi ñu yàlla boolee ci kër gi sant nañ ci yàlla bu baax bi ñu yàlla booleeg maam Cheikh Anta Mbacke boole ñoog sëriñ bi ñu jaaree ko ci buumu sëriñ As Guédé Mbacke ñu ngi sant bu baax kàddu yi may yëkkati nag kàddu yi Medoune Gueye la ndax xam naa yaram wu xaw a sutante rek moo ko xaw a téye ndax dafa ñëw ba yegg si yaram wi xaw a am nu mu sutantee moo tax tey ànduñu ak moom ci siyaar bi waaye mu ngi leen di siyaare bu baax di leen nuyu Mbàkke ñu ngi santate bu baax di leen gën a jokk dékk suñu bopp àdduna ak alaaxira ndax xam nañ ni bi ñu jëlee suñu bopp jox leen ko ba tey am bëgg ñoo mel ni kenn waaye ñi bëgg a mel ni ñun bari na barki Cheikhul Khadim ñun ñii gox ba ñu dëkk amul kenn ku ñu fay xool bëgg a mel ni yow giñ naa ko ci Cheikhul Khadim te bir nañ ay nit a ngi ñuy xool bëgg a mel ni ñun fi ñu jaar la ndax biñ ñëw fii bi fii ñëw ñun ngeen ñuy tettee daanaka ñun mën nañ ne suñuy waajur am nañ yaakaar bu amoon bu ñu amoon yaakaar it yaakaar jooju weddeeku woon waaye suñu defaru fii la ko suñu borom jaarale jaarale ko ci maam Cheikh Anta Mbacke jaarale ko ci Sëñ Gédé jaarale ko ci sa jëmm ji ñuy gis Sëñ Gédé ba noppi koo gis di gis maam Cheikh Anta ba noppi koo gis di la fi gis Mbacke yàlla nga fi yàgg lool te wér yàlla na nga fi yàgg te wér Mbacke di ñaanal nag sëriñ bi bu baax Mbacke sëñ bii ñu fi maam Cheikh Anta Mbacke bàyyil Mbacke kii nu mu mënoon ti mel nu mu mel nu mu mënti mel ci àdduna rek moom nu duñ ko génn nu mu manti mel ci àdduna duñ ko génn bu meloon neneen duñ ko génn waaye sant nañ yàlla ba bi nga xamee ni dañoo dëkk ci ndakaaru xam li bu nu xamul lépp it jot nañoo am lu ñu xam xam ni jamono bi doxee ak ni ay moroomam sant Mbàkke ni ñoom wala neneen ak neneen ni ñuy doxee ak fi ñu tegu gis nañ ko xam nañ ko bu baax waaye sant nañ yàlla ci yar bi ak dal gi sant nañ yàlla ci ndigal li muy doxee teg nu ci ba ñun ñii nga xamante ni ndey tey ñoo ànd ak moom manam bañuy gis maam Cheikh Anta Mbacke sax lañ dan tarfa dan lan def tarfa tarfatal ay ni barki Cheikhul Khadim ñi meetuñ ko def ta du wax du jëf waaye yaram rek ak am fu mu teggu sonalul ben taalibe sonalul kenn sonalul mak sonalul ndaw sonalul wolere sonalul kenn mbake fi mu gën ko yem lo rek fa la yem ñu ngi sant yalla ci loolu bu baax ta xamni nu mu nu li fi maam Cheikh Anta Mbacke Mbacke bàyyi lu ñu mënta mel ñun ci loolu la ci loolu lañ fasiyene de benen kaddu gi ci dess mbake ñu ngi tub bu baax tay jéggalu mbokki talibé yi ñoo massé di sakku ndigal di la ko laaj ci barabu sëriñ bi am nañ ci te bëgg nañ ko yeesal te itam sa ndigal rek lañ ciy déglu wuñ ci ndigalu kenn xalaatuñ ci kenn xoluñ ci kenn yow rek lañu ñuy mbacké ñu ci joon ñaan ndigal diko sakku te itam di la ci déglu ba loñu ci wax rek ak foñu ñu rek ñu fas yéene loolu mbacké ma ngi tuub bu baax yi ndax warul waye ma ngi koy tuubaat bu baax di ko jéggaluwaat santaat yàlla bu baax Mbàkke salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla bu baax ci jotaay bi di ziar mboolem ku fi teew te jël ziar bi di ko teg ci loxo sëñ As Gédé nga xam ni moom lañ jàkkaar lool muy sëriñ di Gaawaan diko ñaanal sama borom guddal fanam te ci cëram bu baaxa baaxa baaxa baax ba mbollem naal yi nga xamni fekk nga ñëla jiitu woon naal ko te yëggut nga boole ak say yu bop yeggale ko te ko ak ñun ci barki sidi gawan xeyna kaddu yu du gudd ni ñu ko seen bi santé rek non lañ ko fasiyene defé ci làmmiñam la ñuy waxé ci sant gum la sant mom sant go xamni amna tambali amul ab yemukaay waaye ci feddali gu muy feddali laxasaayam ci sa jëmm waaye ci yeesal gu muy yeesal njébbalam itam ci sa jëmm sukk ay bëti woomam te sukkaaleel ñun ñu topp ci moom tàllal la ay loxoom di la yaakaar te yaakaaraaleel ñun ñu topp ci moom lañu waxoon daaw rek lañuy waxaat damay wax ni bu fekkee li arab wax ni al waladu sirru abihi loolu dëgg la jëmmi sañaas gede moo toog maam Cheikh Anta Mbacké toog loolu rek lay lay demee te noonu dong la mën a demee kon mbakki moom ci làmmiñam laay waxee mu lay ñaanal nga gudd fan ak wér di la ñaanal lépp loo yóotu yàlla na nga ko jot ci sa sago te di feddaliwaat lam la waxoon rek doo ab jarbaat bu bëgg a jege nijaay doo ab doom ju bëgg a jege baayam wala mu di ko donn doo ab donga bu bëgg a jege ab sëriñam moom taalibe rek la bëgg a nekk taalibe akub donga nag bokkut taalibe rek la bëgg a nekk nekkal la ci biir tool bi rek ne ci waar wi te di la talal ay loxoom di sàkku ci sa jëm lépp lu ab sëriñ di sas ab taalibeem ngir liggéeyloo ko mu ngi koy sàkku ci sa jëmm waaye di sàkku it nga ñaanal ko ba lépp lu ab taalibe di liggéeyal ab sëriñam ngir am ca njariñ moom yéene na ko ci xolom bii te fas yéene koo jëfe kon loolu mooy ay kàddoom yoo xam ni dénkoon na ma ko di sant yàlla bu baax nag moom mi ngi sant yàlla bu baax ndax alxuraan dafa wax ni wa atul buyut min abwabiha neegi de len jaar ci bunti mom nak sant na yalla ci bi ko buntu bopam muy sa jëm ji sant na ci yalla bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha kon mu ngi lay ñaanal fan wu gudd di la ñaanal wër di la ñaanal yegg akuk yeggale mbacké it li samay kaddu la ñongi ngi sàkkuwaat sa jëm nga ñaanal ñu ñu ngi ñaanalee woon ndax ñaanalon nga nu daw kat yalla nañ ko fekkee nëgë ni borom nanguna ñaan nga ba fekke ko ren ñoo ngi sàkkuwaat nga ñaanal ñu ñu fekk ko ay déwéni déwén te di sàkku sa jëmm it nga ñaanal ko moom mii mu gën fee yàgg te gudd fan lool ndax sunub sak la mbooleem taalibe yëpp ñu ngi sukk di la dagaan nga ñaanal ko mu yàgg fi ndax nii rek la mën a mel nii rek la mën a mel lu nekk ci moom rek mbàkke yéen a ko def ci moom kon nag loolu samay kàddu la yu ma ci sof waaye moom ay kàddoom mat na sëkk ci sant gum la sant ak gërëm gum la gërëm ak wàkkilu gu muy wàkkir ci yow ak yeesal gu muy yeesal njébbalam ci yow ak yaatal gu muy yaatal léppam ci yow kon loolu mooy ay kàddoom Mbàkke ñoo ngi tuub bu matul ci sunu jëmm la bu matee ci jëmmam la moom mi nu yónni waaye sant na la bu baax sant gu amul tàmbali te amul ab yemukaay ñun taalibe yëpp itam maase nañ sant ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ni mu la sante wallahi sante nañ ko noonu sant goo xam ni am na ab tàmbali te amul ab yemukaay ngir fi mu fekk yoon wi tegu fa foofu rek la daal di teg tànkam te ànd ko ak ñun ñoo ngi tub ci kàddu yu baax di jéggulu mboolem ku fi teew wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bokk sant yàlla borom bi moom mi nu tew feexale ñu teew fii naga ni daaw ca baaxam nga ak sellam nga mu tew feexal ñu tewaat fi ren ji kon nan bokk ñun yëpp sant yàlla borom bi sëriñ bi sa taaw bu gore bii sa taalibe bii ci suba dama woo ma toog moom lu yàgg mu yëggati ay kàddu sant la ko waaye sàkkul ma yëkkati ay kàddu séeréer la digganteem ak mbooloo mii topp ci ginnaaw ndax ne mbooloo mii topp ci ginnaaw nee na yaakaar nan ko topp nan ko ànd na nag moom seen yéene ci moom waxtu ko ne day gën di dolleeku nee na amul guddi amul ba bëccëg jëwrin wax na ko léegi lépp lu mu bëgg ci ñoom nee ci moom mii la yàgge waaye yàggewul ci ñoom nee na sa daara jee nga xam ne moo la fa nekkal nee na mi ngi lay seereel la mboolem luñ fay def ñoom taalibe yi ñoo ko fa def nee na ànd ko ak jëf ànd ko ak yéene ànd ko ak taxawaay bu rafet kon nee na loolu mi la koy seere nee di la seere di la fee muy daayira yi nekk ci biti neena kenn ku ci nekk la man ci bis bi nee na def nga ko ba jéem soo loo mënul na loolu mi la koy seere nee na mbokkam yi nga xam ne ñooy ay ndijaayam ak ay doomi ak i bokkam nee na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lay taxawaay digganteem ak moom nee na loolu jëf na ko ci moom nee na loolu nag Mbàkke danoon bu teewee sa kanam naa ko seere seere la digganteem ak mbooloo bi xamal leen ni daal nan bët yan doon xool sa mag ju baax ja te di xool nee na ñu ngi ko koy xool nee na yéen a jën aman nee na daal gën a waaye neen dara wàññeeku kon nee na mi ngi ñaan ay ndaw la àndal nga ñaanal leen ñu egg ni yoon nee na ay taalibe la àndal nee nga ñaanal leen ñoom wërsëg mun mën a liggéeyal mam seexan neena mbolo mi mi ngi ñaan yalla guddal seen fan ba li ñeen ci ëtt bi sa borom def ko ci barke borom Tuubaa loolu daal la ma señ bi noonu na ko yëkkati ci kanam mbolo mi neena nak lepp day jëlat bu mu talibé yëpp tek ko ci loxoom wat lepp tek ko sa lox wa may noonu ñu àggale neena mi ngi yëkkati mu talibé yëpp tek ko ci loxom neena na wat lepp mbaa ki nee na sa taalibe dong la doon sàkkuwul dara lu dul sa ndigal dong lay digg nee na fu mën a ne nee sa ndigal la fay digg fu mën a dem nee na sa ndigal la fay yóbbu ku mën a seqanteel ak ku man di doon nee na sa ndigal rek la ciy diglu kon nee na li taalibe yi wax te di ko dagaan nee loolee lépp moom jëlaat na lépp teg ko sa loxo loo bëgg rek nee na lool ca la ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi nee na ngi leen di nuyu yen mbooloo mi ñëpp nee na mi ngi leen di sant nee na mi ngi leen di gërëm nee nag di ko teg ci loxo mii di doomam nee na mu ko jën njaboot gi yëpp nee na mi ngi leen di xamal ni Baay As nee moom doom la nee na yàlla dogal na ak tànk la nee na xarit la nee na doom la waaye xarit la nee na lii wax léegi nee na bayaas nee na sëñ maam Cheikh mi ngeen koy xoole nee na moom moo fi nekk ba léegi rek neena moom dara jógu fi ndax nee na yéen ñii nee na ku toog nee na sëñ maam Cheikh rek moom nga yëndaale nee na moom rek ngay jineer nee moom rek ngay jineer te nekk seen xol yi nee na loolu moo leen xamal ne la maam Cheikh de mi ngi nii toog nee na dara toxul nee na bu doon dafa toxu nee kon du ngeen ko jeneerati nee na du ngeen sax ndax lim fi jëmbat nee na moom de aw yiw la nee lu baax rekk la nee na kenn ku nekk ci yéen bu weete ak boppam nee na xamal na ne amal naa cant sëñ maam seex nee na yéen nag ndax yéen bi ngeen fi ñëw nee na ay ndaw ngeen nee yu tuuti sax nee na boobu xam naa ne li leen di xamal ni sëñ maam seex ku baax la nee na booba kenn ku ci am nee na kenn ko ci ne sa boobu ko dara nee na ñoom de dañuy salloo rek ci oto bi nee na jóge Tëngéej nee na ñëw màggasi nee na màggal ba noppi nee na delluwaat nee na li muy wax moor mii xam na ko nee na sëriñ mii xam na ko nee na Moussa mii xam na ko nee na sëriñ mii xam na ko nee na yéen lépp xam ngeen loolu kon neena loole loolee sëñ maam Cheikh jëmba téen aw yiw rek la nee na yéen nag li leen war yéen a ngi ci ndax yéen a ngi koy xool ci doomam nee na mi ngi leen koy gën a dégg nee na ngeen téye ko bu baax a baax ndax nee na moom de mun leen a fay bor bi nee na bor bi nga xam ne sëñ maam Cheikh lebal na leen ko nee na kenn mën ko jee fay nee xanaa da ngeen ciy jéem rek nee na ba mu leen di jël di leen def ci boppam nee na boobu ñi leen soxla bariwul nee na boobu ñi leen soxla bëriwul nee moom mu jël leen nee na wuuf leen nee na boole leen ci nit ñi ba ku leen gis nee ku leen gis jàpp ni rakki sëñ maam Seex ngeen ndax nu mu leen ñimee leen boppam kon nag ngeen dollee góorgóorlu nee na def aw sey nee na topp ci bayaas bi ndax nee na wax léegi bayaas sonalul kenn nee na moom xam na ko nee na moom mii de di bàyyam xamul soxlaam nee kon yéen ñi nga xam ne yéen ay yi ànd ak moom nee na mënu xam soxlaam kon nee na jàpp ngeen ku mat a jàpp nee jàpp leen ko nag bu wér nee na te nee na di diisoo ak moom ndax du leen wax lu leen di réer la lu leen di réeral nee na du ngeen ko dégg ci aw làmmañam ndax nee na moom de yar nan ko nee na fan ko mata yare nee yar nan ko ba nee na baayam yar na ko nee ba teg ko ci yoon kon nee na yàlla na leen yàlla jàppale nee na màggal gi nag nee na bu mu dekk sun mujjantalu màggal nee na yàlla nañ ko teewaat ay at nee na te mu ñëw nee na dàq nee na loolu moom am nañ ci yaakaar baax baax ndax nee daaw nee na lii rek lañ fi waxan nee na bu ngeen gisee nag ni ngeen ñëwaate nee ak seen kanam nee na xam na ni daal nee na yéen kenn ku nekk la ko war ci màggal bi nee na def nga ko nee ci lu kawe sa jot nee na kon na yàgg nee na tan dëppoo ci ak tawfeex sëriñ bi neena leneen li nga xam ne nag sëñ sëy mee teg wax na ko léegi nee na muy ndigalu barab bi nee na bis ni ki tey nee na wax na ko bayaas nee muy ndigal loo xam ne nee na jox na ko bayaas bu taxaw ko ñu defar ko nu mu gën a rafete nee na loolu mooy ndigal li nee jox na ko ko sa kanam nee na loolu nag nee na lii rek la doon xaar nee lii rek la doon xaar nee na mu génn ci seen gémmañ nee li ko waral mooy nee na boo ko waxuloon nee bi nga déggee mu ne nga ne sëñ maam Cheikh de li mu def ci ñun sunuy waajur defu ko nee na baat bii nee na bi nga ko waxee nee na boo waxuloon ndigali nee na wax ni la nee jot na ñu defar barab bi kon nee na nee na déggoo leen ci ak bayaas nee na ñu defar ko te nu mu gën a jekke nag nee na képp nag kuy taalibe ci kër gi nee boowul kenn nee boowul kenn nee boowul kenn nee ku koy dégg sa morom ñëw fi nee na ko ko jottali nee ñu defar ko nit ko bëggee nee am na beneen ndigal bu fi amaat na xam naa bàyyi astalee na yërëm waaye ab taalibe kenn du ko yërëm nee awaayoon na ko leertu bi muy kër sëñ Modou Mamoun gii muy kër gu mag gi nee na sëriñ Abo dafa joxe ndigal ni dañ koy defaraat te ñun ñii turóom mbind lettre ba mbind bind nee na njabootu sëñ as la ko jox te nee na yéen nag njabootu sëñ as gede ngeen bokk ba jox na ko bàyyaas nee na moom de dina leen ko awaaye nee na lim ci jote nee na moom mii ni la jote nee na kenn ko nee na dañ ko jox nee na mu ko ñëpp nee na awaaye ko moom mii nee na yéen ñëpp leen ko waaye ngeen dajale lu ngeen jaman ngeen jox ko ko nee ñu defal leen ko ci liggéey bi te ñaan yàlla ñu dëppoo ci ak tawfeex sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñëpp nan maa tàllal